طويل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات bokk julli di ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ko ñaanal di ñaanal ay sahabaam ridwanullahi alayhim yàlla defal leen ajjana defal ñu ajjana defal ko mboolem jurit alhamdulilah ñoo ngi fii ci masjidul xayf nga xamante ni masjid la boo xamante ni mi ngi nekk ci booru jamaraat waxoon nañ démb nag euh, li ci nekk dinañ koy woowee masjidul ambiya lu ëpp juróom-ñaar fukk ci yonent yi jullee nañu fii masjid la boo xamante ni masjid bu yéeme la dinañuy bëgg léeg-léeg ku mën ñëw jullee fi jullee fi waaye nekkul bërëb boo xamante ne bu ñuy ziyaara la wala tax siisal ko benn mbir dinañ ko woowee tamit masjidul jinn waaye ñu ngi sant yàlla bu baax nag euh, xam nga bu sante yàlla pour mu am lim bëgg du yomb waaye xéewal bii ñu yàlla defal war nañ ko sante yàlla wa ma bikum min ni'matin fa min allah borom bi nee na xéewal bu ngeen mënti am na ngeen ko sante yàlla te ñun ñi ñëpp war nañoo sant yàlla borom bi ne la in shakartum la azidannakum borom bi ne bu ngeen sante danaa leen dolli xéewal bi ñu yàlla defal bu ñu ko doon jàngat mooy defal nañu xéewal 16 millions sénégalais yi yàlla wërsëgal ñu ñu xéewal ba ñu bokk ñun ci douze millions yi nga xamante ne dañoo ñëw aj ci néegam bu mag suñu mujj aj yàlla bu mu nekk suñu dernier aj yàlla ñu yàlla xéewalal at bu nekk ñu mën a ñëw waaye beneen bi bokk na ci li ñu mën a santee yàlla mooy yàlla def ñu ñu nekk ay jullit te loolu tamit moo mënuñu koo def lu jul sante yàlla waaye xam nañ ni xéewali ci nekk dafa rëy tey jii ñu ngi nii di doog a jeexal suñuy jamraat tey la ñuy def suñu dernier lu jamra ci ayyaamu tashriq yi nga xamante ne ca Mina ñun def nañ fa ñetti fan bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy mujje amoon na ahlu taajil ñoo xamante ni defoon nañu démb pare woon waaye ñun ñu bokk ci ahlu taaxir kon ñu ngi ñaan yàlla yàlla defal ñu ngëneel boobu nga xamante ni wax na ko ci limanit toqoo kon sant yàlla bi bokk na ci yàlla wërsëgal nañu ñu aj kon bu ñu jógee fii ñu ngi dellu mun a préparer ngir dellu Makka makka nag lañu ñu fay defee moom mooy li ñuy woowee tawaaful wida tawaaful wida mooy tawaaf bi nga xam ne nit ki da def ngir tàggatoo ko ak kaaba gi waaye am na ñoo xamante ne defaguñu tawaafu ifaada ci ñi nga xamante ni dañoo feebaroon ñi tële woon ñi mënul woon te ñu leen doon defal kon ñoom bu leen neexee mën nañoo def benn tawaaf bi yéena ci beneen bi muy benn xeer boo xamante ne jam na ñaar ñun ñii nga xamante ne ñun ñoo nekkit ku mu neex ci ñun bu ñu demee Màkka diire bañ fay def saa boo jullee boo mënee dem def tawaaf loolu jaamu yàlla nga def nga xamante ne nag ki dëkkul Màkka bu ñëwee Màkka li gën a rëy ci moom li ñu soxla ci moom mooy tawaaf moo fay ëpp doole julli maanaam saa boo mënee ñëw def tawaaf def ko soo mënul nga def li nga mën incha allah rabbi am na lenn ci borom xam-xam yi même boo demee boo defee tawaaf saa boo defee tawaaf rek yéene waala ci tawaaful widaa maanaam muy tawaaf bi nga xam moom ngay tàggatoo ak kaaba gi ndax dem mën na laa bett mën ngaa dem tawat am mën ngaa dem ngant am mën ngaa dem leneen am kon loolu lu mat a bàyyi xel la ñuy ñaanal ñëpp mbokk yi te xam ni lii jaamu yàlla bu rëy rëy la waaye bu ànd xéewal la ata ibnu abi rabah da daan wax ne toujours saa bu waree kaaba gi day wax nii ni allahumma la tajal hajjana hada axira ahdin bina lil kaaba yow yàlla suñu aj bi yàlla boo ko suñu mujj aj kon ñan leen ko ñaan yàlla yàlla nañ ko yàlla defal aj bi yàlla bu mu nekk suñu mujj aj yàlla nañu yàlla defal mu nekk aj yoo xam ne dañuy ñëw waaye yàlla xéewalal jullit ñëpp ñu mën fee ñëw yàlla defal ko jigéen ñi defal ko góor ñi ñi indaaloon feebar yàlla defal leen tawfit wéral leen ñi indaale woon jafejafe jafe yàlla teggil leen ko ñu ñaanal suñu gouvernement bu bees bi yàlla may leen réussite ndax am nañu yéene ku nekk xam na ko ci ñoom te bi ñu am mooy Sénégal jëm ca kanam yàlla na ko yàlla def yàlla na yàlla defal ñu lu riis lu yokku suñuy njortu yàlla defal ñu Sénégal mu nekk dëkk boo xamante ne dëkku jàmm la dëkk tawfiix la dëkku alal la waaye dëkku jaamu yàlla la yàlla defal ñu lépp loo xamante ne moom la ñu ut ci kaw suuf yàlla nangul ñu ko kon ñu ngi ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu defal ñu tawfiq defal ñu nasr incha allah ñu ngi leen di dig di dig waa daarul birr incha allah bu ñu delloo makka amal nañ leen fa ñaari programme yoo xamante ne benn bi moy ñu dem xaru Hira présenté len ko waye benen bi ñu dem xaru Sawru yoy yëpp ben bu ci nek inshallah dinañ ci defat bind bo xamantene ñi dem ak ñi demul ñoo ci ànd comme ni ngeen ñu topé won ci départu ak bi ba fi ñu toll ñu leen ciy defal ay vidéo di len ci jàngal ngeen ñaanal ñu yàlla mu defal ñu tawfiq ñu xamni suñu ndimbal suñu bëgg-bëgg ñun ñep mo yàlla gënal ñu wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin